sama warugar la hmm. sama warugar la ma ma def sama loxo ci li nga xam ne mooy jëmmale dëkk bi ci li nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi wax naa ko léegi sëriñ bi dafa ñaan ni lépp loo xam ne lu baax ni lépp lu dul yiw ak fu ma nekk ci àdduna ci penku ci saw ci saalum ci gànnaar ci kaw ci suuf ñaan sunu borom mu wommat loolu indi ko Tuuba ñaan googee nag ci ñun lay nangoo ci ñun lay jaare kon kenn ku nekk ci ñun daa war a nekk ab soldaar ngir ñaan ngi nangoo ci moom moo tax nag man ma takku lépp loo xam ne mën naa ko ci lu baax ngir defal ko nit ñi ngir dëkk bi jëm ca kanam ci wàllu zaahir ma def moo tax ma def lii kon warugar la ma def ko nag defal ko muy addiya defal ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp koor gi am na beneen ambulance boo xam ne mu ngi ñëw bu ak seetim danañ defaat euh, lu mel nii am na yeneen ñu fi wax lu mel ne ay tali lu mel ne ay assainissement loolu aussi foog naa ne jaadu na yell na ci carte yu mel nii ndax man ñëw na xam nawet waaye bu fi ñëwee nawet fépp day taa tali yi amul benn tali boo xam ne dugg na fi kon aussi loolu population yi sakk nañu ñu dimbale leen saafara leen loolu ko ci yar sàkku ci tegi sàkku ci ak taalibe kon nag loolu aussi ñun lépp luñ ci man ci jot li ko ñi nga xam ñooy kilifa yi danañ ko def te bir nañu aussi kilifa yi ñu ngi leen di xal mënut a ñàkk bu bëggee faw ñu defar quartier yi nga xam ne ñu wattu fi ñu nekk te yëf yi gisuñu ci seen bopp ndax boo xoolee foo xam ne amul yoon foo xam ne amul ndox foo xam ne day taa population yooyu foog na am na loo xam ne dinañ ko yëg ci seen diggante ak ñi xam ne ñoo yor kon mu gañe Touba mënu ko tànk defu fii nag am na ci yéene mi ngi def ci dëkk bi kon dañuy ñaan yàlla rek yëf yi gaaw ak si nga xam ne ngeen am na programme yu fi nekk am na yuy ñëw te bir nañu dina dina dina dina agsi ndax euh, sëriñ bi wax naa ko léegi aussi yëg na ne nit ñi ñëw ngir làqu ci ginnaaw sëriñ Tuuba euh, maa ngi léegi maa ngi wax kilifa mu ne ma ne sëriñ bi génn na àll bi takk ngir dimbalee ko jalis bi nga xam ne moo nekk man la foofu génne jëne àll ju takk ngir ñu mbooleem ñi taalibe yi di jàng ci ay daara alxuraan ñu def fi seen kon kooku xam nga am na loo xam yëg na ko lii mm-hmm. itam bu ko yëgee nattab loo mën a danañ ne saafara beneen bi aussi mënu ma ko wax mu di taxawaayu suñ mënu karam ndax ñëw na fi daaw daaw jéeg def liggéey bëri ci wàllu ndox gis nga tey li nga xam ne borom baax wax na fi léegi ne kër sëñ bi nee na joxoon na addiya benn poste de santé waa Daaru Manaan Daaru Manaan lañ koy def man wax naa fi léegi ne leen nag ku jox Sëriñ Tuubaa te ku loxo borom Daaru ci foog naa jooju addiya ak kon sëñ bi ne nee nañ ko santal nanguñ ko gërëmal te nee du yem ci loolu ndax li nga xam ne moom la moom la taxawal Bamba fépp te moom mu jiite ko bépp action de bu ñu def rek dina ñëw def ko Touba mais itam nee naa leen léegi képp ku ma am képp ku ma xam rek naa la moom indi la nga def nga dugal sa loxo li nga xam ne moo jëm dëkk kanam ndax dëkk ñun ñoo ko war a naa wax naa ko te man boobu waxantu. Mhm. engagé naa euh, nee naa président def ma daf maa lebal fi loolu amatuma dara moo tax laaj ko dara bëgguma ci moom dara soxla ma sax gis. ndax dafa bàyyi ñëpp tàddamante ak ñu ca kaw kon tey jii te moom soxlawut man la bëggaloo tey nag moom moo soxla moo tax man dinaa ko bëggal man man noonu laay doxee. c'est objectif. noonu laay dox donc jàppale ko ba mu gagné au premier tour incha allah rabbi bu soobee yàlla